bis bii li ko waral ak li ko sabab ak lan moo indi bis bi yàlla ngi ko dogal ci kàddug Seex Mbàkke jël ne dana ki asin ndax dañu toog fii di waxtaan mu ne bu ñëw suba la màggal dañuy toog di waxtaan duñ def dara kon duñu war a dellu ci dañu war a delluwaat ci yàlla topp dénkaane sëriñ bi ba ma waxee loolu dugg sama xol ma ànd ceeg moom ne ko dañ ci boole woo benn jàngkat su waxtaan wi àggee kooku dundal guddi gi ba ñaari waxtu jot ndax fanaanee xoole yendoo xoole neexut kon mbir lii moo li ko sabab ñu ngi ñaan yàlla mu yàggoo taxawee te liñ ci namm yal na tase ngërëmul Sëriñ Tuubaa kon man li may tënk mooy kan mooy Xaadimu Rasuul kan mooy borom baraag bi kan mooy kiy xettali bindee fii tey ak ëllëg kan mooy mujaddid wa muhaafis kooku mooy suñu yaakaar xaadimu rasul sëriñ bi dafay ñëwoon ngir xettali waaye ci li li mën a tudde njàlbeen te boobu man nañu at yi bëreegut am na melokaan um meloon te fi ne ñu bari boo leen waxee ne leen roy sëriñ bi dañuy wax ne sëriñ Tuubaa kenn mënu koo roy sëriñ bi am na ci loolu ko a roy نحن ينتمي عليه الصلاة والسلام دم وخلقات كان لم يكن في رسول الله إخوة العصمة فني قرأي له وي أمنا يكي يالا جدل يو خمنا نيجم يالا بوكو نيتي من دون المؤمن دي كون نن روي لنا خمنا دفر دبو الشريعة أك حقيقة نحن مو بسرعة وجدد الشريعة المطهرة بالله والحقيقة المنورة yeesal na sariya yeesal na xaqiiqa waaye bi mu ko daataan yeesal dafa am fu mu tàmbalee ndax dafa am lu am solo ci mbir mooy lépp looy def bu tàmbali ba baaxul mën na am mujj du baax fondation lu am solo la ci mbir mu mën a doon bi mu jógee te yàlla def woote bi bi ustaas doon wax woote boobu jógagul dafa am lu mu nekkoon dafa daan dundal sunna bu wér bëgg lu baax lool bañ lu bon lool doonoon koo xam ne bëggut alal soppul alal ci biir loolu waajuram bu tedd wa muy Maamoor Anta Sali radiyallahu taala yàlla def am na lu doxoon digganteem ak Lat Joor ba sun borom dogal Lat ànd boobee mu bari lu muy sàmm sëñ moor yi am lu muy sàmm ba suñ borom dogal suñ moor sëñ moor génn àdduna bi mu génnee àdduna mag ñi tase am na ci lenn loo xam ñenn ñoo xam ne boromi xam-xam lañ ñëw toog ci garab mbooloo bu bari ñu daal di wóor sëriñ bi sëriñ bi bi mu ñëwee fekk na mbooloo mi toog waaye bi mu egsee daa fekk fa nit ñi yam mu toog foofu jéggiwul te booba la ëpp ci waxtaan wa moo tax ñu koy wax ñu woo ko mu gàntal ñu ne ko sëriñ Mor dey dafa doon noonu wala réew Lat Joor danoo bëgg fa Lat Joor feetu woon sëñ bi fa Lat Joor woon sëñ Mor mu feeta la fa yow fa sëñ Mor feetu woon Lat nga feetu ko mu ne moom jomb naa dox rus naa dox malaaka yi di ko seere suñ borom di ko seere mu jëm ci buur bu dul yàlla ñu daal ne ko da jublu ci ñii soo jubloo ci buur yi dañ la dimbale te da nga womal te boobu gis nañ ne at yi bariwut mu am lu mu leen tontu ndax ñooñu ay boroomi xam-xam lañ mu defee loolu man nag njaal mi moom mën naa koo def ndax wëla réew sëñ Mor la woon waaye mënuma jóg di dox di jëm ci buur bu dut yàlla duma ko def ci li nga xam ne ci lañ doon waxtaane sànq mooy ak njub te loo xam ne doy na yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ na ko fastaqim kama umirta wa man taaba maaka wala tastawi innahu bima ta'maluna basir kon yàlla dafa dogal nopp sa bii nga xam ne oustaz jàllale na ko dafa lëkkaloo ak aaye boo xam ne dafay tontu ña doon wax sëriñ bi jàngal ndax laaye bi fi mu yu góor wala tarkano ilal lisina zalamu moo ko teg bu leen jëm ci ñi nga xam ne dañuy tooñ wala tarkano ilal mudina zalamu kon loolu nasul kitaab la alxuraan nag ñaari mbir rekk la laaj samxan wataan dégg topp ginnaaw ndis ka xaama bi li ci ustaas indi doy na léegi nag loolu nañ ci natt jamono ji fi mu toll ak mbirum xaalis ak ni jamono ji doxe ñu déglu ki nga xam ne mooy xu xawusul waraa waxoon boroba baan lam waxoon mag ña nga xam ne nekkoon nañ fi di boromi xam-xam te ñooñu ay jullit lañ te jàng nañ alquran xam nañ ne alquran nee na wala tarkunu ilal ladina zalamu waaye mag ñi dañuy wax ne sëriñ sopp daganal am na ñuy doxe noonu léegi li tax ñu andi ko xasida bi dafa doon loo xam ne ku ko yër te xam la ko tax a jóg doon na loo xam ne ku ci sukkandiku suñu borom tabaaraka wa taala mën na la dimbale ba nga àgg fa nga xam ne dana kawe njort ndax képp ku roy Sëriñ Tuubaa ka ko royut moom raw nga kon lan lañ ko wax ñoom dañ ko wax ne ko bi moo wax ci benn nuuniya ne dañ maa wax xaaloo li yarkan li abwaa bi Pabos Jawar is la tox neen ko la baaxee sëriñ bi nee na dañ maa wax ne ma jàngal jëm ci bunti buur yi soo ko defee danga nga làq ay ak pay te danga nga womal duutu ñàkk benn waxtu loolu ñu ko ko wax duñ ay yëgoot duñ ay nasaraan ay jullit lañu waaye nekk jullit du te bëgg xaalis am na ñoo xam ne xaalis lañ bëgg. waaye am na lu ustaas waxoon ñu fàttali ko innama amwaalukum wa awlaadukum fitna bàyyi mel na ne boobu fàtte nañ loola ñoom lañ xool rek ni ko sëñ Moussa Ka waxee jàngal te jublu bunti boor yi cay ñoom ñoo ñëwee ne wa sëñ bi ne wax nañ mën a jàngal sëñ bi dafa am lu mu leen tontu daal ne leen fa xultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi walastu raadiya xayral ilmi wa diin man day biñ ma waxee jàngal am na lu ma leen wax nee naa leen yàlla doy na ma te doy loo naa ko te man gëwuma gërëmuma lu dul xam-xam ak diine tey sëriñ bi mi ngi wax ne innama tafawwatul wara bil ilmi wa diin yakun fasbira wax ne walastu arjo wala axsha siwa maliki li annahu jàll yox nee man de yaakaaruma te ragaluma loolu yàlla mi nga xam ne moo màgg tey ku woomal la moo may woomalal tey moo may musal daa di waxaat ne an ne ufawidu ahwaali liman ajasoo an xaali anfusihim xajjal masakini man nan lay bëbbale samay mbir jëme ko ci ña nga xam ne seen bopp da leen jaaxal ni miskin jaaxal leen ci boppam aw kayfa yàq xasuway ubban wataani ilaa jiwaari man dóoru mu raw bas fiyaxtene wala man nan lay demee mel na kuñ yónni sopp poñet mi nga xam ne poñetum àdduna la ak ña nga xam ne seen jardin seen kër mooy euh, jardin saytaan dooruhum raja shayatin c'est-à-dire bi ngi tontukaay yi ba tey ne leen in kuntu za hasanin aw kuntu za watarin daxawtu sarmayna qabla raai wa siini man Xaadimu Rasuul bu ma amee njàqare wala maam ajo damay woo borom xëyam ga la jëkkaraaga ak seen gi te mooy borom aras daal di wax ne wax wal mu wax wal mu'inu la si laa shay'un yujisuhu wax wal mutammiru ma sha an yatakwiini mooy aji ndimbali ji nga xam ne amul lenn loo xam ne dana ca lott te lu bëgg a nekk rek loola dana nekk wax ne in shaa ta'jiila amrin kaana zaa ajalin aw shaa ta'jiiluhu yaqta' ilaa ayn ilaa hiin su ko neexee mu gaawal mbir su ko neexee mu yeexal mbir kooku nga suñ borom tabaaraka wa taala bu daa dende nag yaa man yanoomu falaa tubtir waxta andanin is lastu min faxdati dunya bi maxsuum nee na yow mi nga xam ne danga may yedd bul baril yedd gi may yedd ndax man ñàkk gi ma ñàkk àdduna loolu du ma jàq lool du ma tiitloo in kaana aybin sumtul fii wa taalif moom fa zaaka aybun nafi sum lay samul xiini man xaadimu rasul su fekkee ne sama ayib mooy dëddu gi ma dëddu poñet bi te poñet mooy matt bu taam mooy matt bu sew moom nga xam ne boo ko tegee ci taam day daal di jërët loola nee na ayib la joo xam ne ju sell la te nee na loolu moom du ko gàcceel moom Serigne Touba kon nag nañ xool Seexul Xadiim ba muy wax ni demagul ci géej Sëriñ tubaab bi muy wax lii taalibe booba njëbal amagul kon ndey gi xasida gi lan lañ ci war a nattee jamono ji xew-xew yi bari na yëtte yi bari na gis nañ ñu bëree bëree bëri ne diinaar lañ xool waaye xooluñu leneen waaye man jàpp naa ne li sëriñ bi bind képp koo xam ne settantal nga ko te di ca tegtaloo foo teew ku deful ni yow dana am loo ko gëne kon nan xam leen am mooy lan xam Sëriñ Tuubaa tey wax dëgg yàlla waruñoo bokk ji ñuy rusloo yoonu murit ndax am murit dafa am lu ko war ñaari mbir rek mooy murit topp li gën bàyyi tere nit ki nag lépp loo xam ne yaa ngi koy def te bëggoo ku la ca fekk bëggoo ku la ko nettali na la leer na lu bon ngay def